Assalamualaikum wa wabarakatuh. wa barakaatu mbokk yi ñi sétal HD 221 TV docteur Abdul Bass ñu gënon ko xam ci Bass nekkon ci dëkk bi di Ngumba Ngeewul Ngeewul bok ci département bu Kébémer moom moo génn àdduna tey jii masoon a nekk ci hôpital régional bu Louga nekk fa nak di faj ba retraité nekk kërëm ci di faj. yalla mayon ko lool ci walu faj nak taxon na Sénégal gépp fenn fu nekk la nit daan joggé ñëw ci Ngeewul gi di faju daana jël bis bu nekk ci këram daana recevoir cent malade maanaam téeméer ci ñoo xam ne dañoo feebar mu nekkoon ku laabir lool koo xam ne daana def loo xam sax yombul ci jamono nga koy gis mooy di la faj te du laaj dërëm maanaam yow yaay xool rek li nga xam ne am nga ko nga joxe 200 francs sax da ngay gis ku ko joxe te dalay lay faj ñoo ngi ñaan yàlla teere ko ci aljanna yi seem ja wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh